ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykati ka mangala yaara jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yéen ñiy suivre seen site bi ci Sénégal TV ñu ngi leen di di leen siyaar di am mbégte kontaan comme ni ñu ko defee chaque jour di leen toppal làmb avant pendant après dañ koy topp jox ñu ñuy suivre dañuy bàyyi xel moo waral tey ñoo fi nga xam ne mooy caare yi fii nag miin nañ di gis ñu fiy ñëw lu bari di fi tourné émission di seeti ki nga xam te moom Khadim Ndiaye monument Thiaroye Géej tey nag maa ngi ko fekk fi nga xam te mu jubun kër gi mu ngi daf toog def jàllaabaam bu baax macha allah ku nga xam ne tele la bisu tam xarit mais dama koy bàyyi ma nuyu si ko defee ñu ci waxtaan bi Khadim maa ngi lay nuyu di waa Thier maa ngi lay fay di nuyu di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant sëñ Mountakha Khadim Rassoul yàlla yàggal ko fi te wér di sant suñu buntu ci sëñ Touba muy sëñ Modou Habib sëñ Cheikh Darou Rahman yàlla yàlla yokk leeram Tas ci barkem di nuyu njabotou seigne Abdoulahi borom derbi bi yalla guddal sen fam ben xarit Pape du Fall. dinaa fa ñew père dama la def jalaabo bu baax tay bisu tam xarit da mel tay yaa ngi wéetoog suñu borom. waaw di balu ak ñep rek ndax ñun ay jullit lañ bisu asura dañ ci balu ak bisu banex la eh, bisu naxar la ndax ci la yalla teeraloon ci galu nooyub ci ci ci bisu tam xarit la won xam nga ci lañ ci la yonentou Musa yonentou yalla musa ci la xaron geejji labal Firawna kon yu bari dal bisu banex la bisu naxar la di ci baalu àq di ci baalu ku melni pap Dufal as ndaw man ku ci melni tamit euh, sama xarit bi nga xamanteni mom la ma muy Dufal ak euh, ki nga xamanteni tay tey ministre sport matarba di xamni di ko ñaanal yalla defal ko jam defal president Macky Sall jam ak soxna maram fay Sall jam di nuyu Père Ba bu parcel ku yalla baxal ku meuna dimbalé doomu di nuyu doomam Mansour. tamxarit yi nag ñuy baalo àq ñëpp di jégal ñëpp tey baalu àq ñëpp tey wax réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj waaw di la déglu rek ci say question pour ñu waxtaan. bi nga xëyee tamxarit bi ndax nga ko gérer parce que tey su ma juumalee tey dafa mel ni def nga fi ay nag wala boog maa ngi koy dégg. Mm-hmm. waaw xam nga xam nga àdduna moom. nit ku ne say nit nga am xëy xëy na liñ ñu bëggoon lépp sax yàlla matalawuñu ko xam nga ndax da ngay am lii say nit am leneen matali la nga. te yalla ñu yalla defal jamm dal di wax ni dal koñ bi dal ñi ngi leen di sant ñom ñep di leen ñaanal yalla di ñaanal bonne volonté yi bonne volonté yi nga xam dañ yor seen teranga ba pare di sét lu baax ñu di def ci nit ñi ñoo ñu ngi leen di ñaanal ku melni ni As Ndaw Ndoukoumane Père Ba doomam Mansour Pa Abdou Fall ministre sport nga xamni ni ñooñu ak Doudou Ka bu idb bu Casamance nga xamni jamm la koy ñaanal yalla defal ko jamm di nuyu tamit alundooy bu bu bu Wally ak sama doom Waly Seck yàlla defal ko jàmm ak yaayam Kiné Diouf di wax ni defe naa démb demoon nga làmb ji waaw làmb ji moom démb mm, daal gis nañ ñëpp ni ni làmb ji demee génnoon naa def benn sortie coow li bëri woon na wàccaay bi yàggoon na diggante bala Gaye ak ki nga xam mooy giri Bordeaux ñu entraînement def seen shooting ku nekk wana sa yaram ñenn ñu ne état bi baaxul. waaw njëkk njëkk a wax man maa ci man maay pay man maa njëkk a wax ni ñaari mbër yi parewuñ 100 pour cent boobu des na ay 15 jours 20 jours thérapie laa ko waxee woon mais bi ma ko waxee gis naa ci diggante bi mbëri demaat nañ rootiwaat waaw kon dégg kon foofu dimbale naa leen xam nga dem nañu rootiwaat mais bi ñu rootee tamit ba tey tam ñu ñëwaat mooy des na ndax sport au niveau mënuñu la jox combat boo xamante ni diire na lu mat 4 mois oubien bien mois nga simmeeku yor yenn état yi te ñoom nit ñaa ngi naan jeexal nañ mais jàpp naa ni jeexalaguñ. jeexalaguñ la ñu war a def ci seen yaram lañ deful rek seen yaram mais nit nee nañ tànk yaa ngi am 52 ba tànk yaa ngi am cinquante ans sa doole sax foofu la gën a war a dese xam nga ndax suñu bàyyi dañ daan dem am ay 63 ans te terewul dañuy am doole ndax góor hygiène de vie rek te ñoom ñii ma gis ay xale lañ duñu ay mag Gris Bordeaux sax mën na xaw jëm mag tuuti xam nga mais li ma bëgg rek mooy lii ñu indi ñoom ñaar ñëpp dimanche ah

jàppoon naa ni man ci sama xel jàpp na ni moom làmb ji fii lay mujjee ndax su bàyyi su Aziz Ndiaye ñëwee yéeg ci kaw bàyyi rakam bàyyi Ndiaye mu toog xam nga làmb moo la wan ni làmb li ci nit ñi séentu ñu bëri du man ak fi may gisee ñu bëri duñ gisee foofu làmb ji làmb ji daal showbiz la il faut nga am bopp mën a encadrer sa mbër sa mbër mën cee mucc waaw mën cee mucc làmb ji dafa garaaw de. Gris Bordeaux bi nga xam tamit moom nga xamoon 97. deux mille et quelque ak amul différence changement bi lan la. non am na différence mais bu ñu fàtte ni Gris na vingt cinq ans de carrière ou bien vingt ans dañu waxante dëgg te ay combat soog rek la fi bëri Gris mës ta bëreek la ay presque ay luur rek la fi bëril ñu nekk ci kaw xam nga tey bu ñëwee indi lii gën a féetee Balla xale xam nga tey indi lii mu indi tey wax dëgg yàlla am na ñoo xamante ni bett na leen kenn xamul woon ni man li ma gën a métti ci combat bi fii mooy célébé yoonu caaro caaru géej ci waxtaan ci wàllu làmb ñii dañu ànd ak Gris Bordeaux ñii ànd ak Balla Gaye te ñoom ñëpp ci man lañu war a ñëw pour ma gindi leen xam nga waaw maa war a leeral te soo waxee jëm ci Balla ñii mere la nga wax jëm ci Gris ñii mere la ndax démb sama gaa yi ñoom Samba yi ñoom Boynaar ak sama gaa yi toog fi yëpp xam nga ñëpp dañoo am fu ñu far xam nga mais leen lag laa lay wax dama la wax ceer benn wax bu garaaw sànq te bàyyoo ci xel làmb ak showbiz ñoo yam lamb guddi ñu toll showbiz la gañaa gañ la ku ci nekk fa nga nekk ak lu mu lay jaral da nga koy def pour foofu am ndam bala tey li ko génne ci komba bi du sëriñ du gàllaaj jomam dëgg dëgg dëgg du entraînement jom moo ko ci génne jom rek moo ko ci génne te li ma gën a metti mooy dañu rungub ñoom ñaari mbër yëpp pare ci làmb ji waaw xam nga loolu tour lañ ku ci nekk weccoon teg sa morom ay coup ñu dugg génn dugg génnaat est-ce que tamit seen du génn non souffle non premier souffle xëy na balaa moo génn il faut que nag premier souffle nga sonn loolu du insigne boo xamante ni insigne bu baax la ci sportif au niveau nañu waxante dëgg rek mais li ma gis jàngat ko ci jàngataat ko ci jàngataat ko ci te ñu bëri jàngatuñ ko lamb ji démb am na ay version yu bëri yu ma ci gis am na benn sëriñ boo xamante ni dafa ngémboon Balla Gaye dafa ngémboon Gris Bordeaux ci contre Balla Gaye tey daa wàññeeku ñëw ànd ak waa kër Balla Gaye ci contre contre mag Balla waaw mooy ko yoroon laspeer gi gis nga ko wax taxaw wax ne guddi guddi Bombardier day daan Balla Gaye tey waa kër Balla Gaye eh, fexe nañ ba indi ko seen camp xam nga làmb noonu la làmb da ngay seet lu la amal njariñ waaw affaire u mafia la da ngay seet lu la amal njariñ nga gém ko xëcc te Balla Gaye am na moyen presque mën naa ni mbër yëpp moo cëpp moyen ndax li nekk ci ginnaawam di ko jàppale encadrement bi moom ñi di ko jàppale ci wàllu financement su Balla Gaye tey di xoolu lu nekk ci kanamam ñooñu war nañ ko ko wax ndax li nekk ci kombaam ci kanamam laax bu tàng jër la boo xam te day lakke waaw dinañ ci loolu dinañ ci après. boo xamoon 21 mars 2010 2005 2006 ak Balla mi ngi gis démb tey jafe bi lan la. non jafe Balla am na Balla Balla am na am na manquement bu bari ndax Gris tamit bul fàtte ni moo njëkk a pare Balla. te Balla moo daan njëkk a pare taxaw naan lakaay kaay naan ni heure bi lu bëri xam nañ ko ci moom su demee nag bañ koy def noonu y a quelque chose gis nga réunion di critique dama koy wax écrit yi il faut ñu di ko def avant la combat ak après combat su komba jeexee ngeen tegaat combat bi staff bi toog entraîneur di toog ñu teg combat bi ñu xool suñu faay fi ne ñu waxtaanee ko mbëri ne ko lii lu tax lii lu tax dama ne entraîneur Balla yi soit ñu ngi nax Balla wala ñu ngi bàyyi Balla ci lu ko neex muy entraîneur xoolal moom lu ko avancé loo ak lu ko jëmee kanam loolu dama koy bëgg quoi te mbër boo nekkee tëdd fiil ci écurie wala nga nekk fa soit entraîneur technique nga yor écurie amoo droit di dem di entraîner beneen mbër ndax làmb dafa fiir nañu waxante dëgg xam nga nit fa la yàlla booleel muy say rek dama seet Mbaye Guèye la seet bii lay am un ci biir a jigéen ñi wala boog Gris Bordeaux écart bi mu écart gi nga xam mooy Tapha amul lu mu combat bi dama dégg ni ñu bëri ñii ne dañoo gedd ñii ne dañoo nangam xam nga mais loolu yëpp li ma ciy ñàkk rafetlu rek mooy nañ suturaal Mbaye Gueye Mbaye Gueye bi mu nekk Fass dafa encadré Fass yëpp bàyyi woon na bëri mais dem na bam am ay yenn adi yi sax te terewul mi ngi dugg ci biir làmb xam nga xam nga tamit côté Balla Gaye yàlla dimbale na amna moom am na sens bi tey Balla Gaye tey boo dee seet da nga naan Abdou Aziz Ndiaye mooy baayam mooy yaayam te Abdou Aziz Ndiaye nag nandite la du ngaaka nañ waxante dëgg ku xool ni muy encadré bala teg ko ci ak si nga xam ni kii nandite la lépp loo mën a yokk bala mu ngi koy indi kon kooku nandite la mi ngi doxal écurie Guédiawaye bi 100 pour cent mais damay wax ni Fass daal li ma ci naqari mooy li tax ñu ne suñu père Mbaye Guèye yàlla na ko yàlla xaare àjjana ak suñu bàyyi jiitu mais père Mbaye Guèye amagul at ci at lay am ci biir suuf Fass bëgg a loolu maa ngi waaw nu ànduma ci maa ngi conseillé magi faas yi ñu ëmbaat Fass ñu wootewaat géem a encadré waat Fass te xam ni ñuy wax ni Gris Bordeaux nag démérité wul da doon bëre ak ndaanaan Balla daan na ko jël bu amul benn werante ki loolu kenn werante wu ko mais jël bi moom man su Balla doon sama ba dama naa ko bul jibile génnal baalu say àq supporter ah, non li ma ci gis man bokk man man la concerné ko li ma gis ci combat bi malgré que Balla daal na ko jël bu set mais du am na jël yoo xamante du jëlu jubile de gis naa Baye Ndiaye nag dem ba ci Gris Bordeaux ko a juum ne Baye Ndiaye dem ci a seen ci Gris Bordeaux la dem joxoñ ko ci biir géew bi bi mu daanoo Balla sax moo ko xëcc xam nga kon nga xam ni ñoom boo boo dee xalaat di am xam-xam nga xam ni ñoom xalaatoon nañ lii quoi c'est que Gris nag dafa liiroon combat bi ba nekk ci biir combat bi dem ba ci biir échec. loolu ni ban erreur bu mu def ba perdre mooy bi mu dóoree Balla Balla xaw a kaaw. warul woon a teggi tànkam waaw mais Balla nag mbër yëpp koy sóor xam nga mais Balla def na grandeur foofu kaawoo na ñëpp xam nañ ni kaawoo na mais dafa arrière dem ba ba ci booru saaku yi waroon a jéggi saaku yi mais jéggiwu ko dafa taxaw tibb suuf di ko xool ci la giri taxaw bi mu gàddee giri ba giri de ka àppi nag Balla tamit mënoon na ko paqat giri egg mais ñoom ñaan ñëpp moo lay wan ni lañ doon wax ñu ngi commencé sol ndox de gaal gi moom mu ngi sol ndox moom. kon camion bi kon mi ngi commencé dégg. Euh, sol ndox kay lay def waaw sol ndox lii damay wax rek combat booy Niang Balla mën naa la ko liiral avant muy ñëw xam nga ne booy Niang du ku ne arbitre naan fër mu dal ci kaw Balla il faut mu calculer ko dugg génn dugg génn yooyu dugg génn yooyu boo xamee su ko defee Balla te Balla indi condition bi Balla mooy tëddal boppam ci làmb ji ndax Balla il faut mu yokk condition physique am muy cardiaque xam nañu ko il faut que mu defaraat ko. il faut mu defaraat ko mbër nag su fekkee yàlla du ko dénk teraanga mu nekk tête de file nekk benn champion bul xool la mu am soo ko bëggee dimbale rayantel ak moom mu entraîné su entraîné wu nga dem toog yow jàpp sa njàmbur man damay wax ni nit su may ànd ak yow fii ci caaro fii mbër mu ci dul entraîné du ànd ak yow ndax seul travail pay entraînement moo njëkk mooy mujj te bala dafa ko desee combat yoo xamante ni dafa sab sab te ñaan te ñaan bu jugee ci combat yooyu continuer waat carrière am kon nag ni. il ñu jàppale ko bu ñu ko bëggee dimbale mais lamb ji lamb ji yéeme na non ceer lamb ji li ma ciy gis yëpp su ma ko waxoon yàlla bu ma brigade recherche fekk fii sax yóbbu muy leen lan père fii ceer lamb ji man sa xarit la xam nga ceer ñun ay nax di lañ di nuyu père Gaston ak doomam Makan def nañ grandeur ndax Makan euh, Gaston li mu def rek mën nañ ko ci remercier mooy ku dem ba ci président Macky Sall nga jàkkaarloo moo war a ko wax sa bopp nga ne naa ñaanal Petit Mbaye mu dellu si Petit Mbaye yàlla na ko yàlla delloo si muy taalibe Serigne Babacar ku baax man mi defal na ma teranga ba tay xam nga yag na ci wax poti Mbaye na delusi tay bu ko garçon doxé dañ koy santé yalla julli ci yontu bi mais lamb ji dal showbiz la. ëllëgoo giri boro ci bir lamb ak ëllëgam ci bir giri fas wa ëllëgam ci bir fas moy muy delu ci école ba fas gis nga bal gis nga bal gay dafa dafa delluwaat écurie école de lutte ba xëccat ñëpp giri boro nak dégg naa booy sax ñeneen am na xamanteni à dernier moment lay doog a ñëw ci école bi bu la yàlla mayee teraanga nga nekk tëdd fil boo jugee ñëpp jóg del dem ci say rak suñ kenn ku am premier combat sax semaine bi war nga fa dem ñaari yoon taal sooto yàlla may na la oto xam nga nga taal sooto dem ba foofu encadré leen waxtaan ak ñoom loolu da lay delloo si xam nga mais su fekkee da ngaa toog fa nga dëkk rek muy mbaaw xam nga tey Gris Bordeaux tey liim ngeen ba mbaaw kenn contre ko mais tey li gënoon rafet. xoola Balla Gaye papaam gaañu na mais terewul dégg naa dem na ba yi fële mu daan dem retourné waat demaat fële mais loolu laay conseil Gris rek pour mu gën a bàyyi xel ci loolu xam nga te waa Fass tamit ñu xam ne tey giri Bordeaux mii nii mu bëreeg Balla tey wax dëgg yàlla bett na ñu bëri xam nga il faut ngeen jàppale ko tamit encadré ko juum juum ju Balla Gaye ma daan du gàcce xam nga ñoom ñaar li ñu waroon yëpp def nañ ko xeex nañ bëri nañ gis nga làmb ji ku fa ñëwoon jéppi woo leen nañ ak malgré que seen entraînement ba des na mais terewul fayitin nañ bëri moo fa amul mais fayitin nañ songoo nañ jàppoo nañ def nañ lépp biñu dee ba ci dernière action bi ko Balla Gaye di daane foofu Balla dafa nax giri ndax Gris dafa yaakaar ne Balla dootul xeex dootul dootul dootul song xeex rek lay continuer ci ci la ci la Gris Balla jooloog moom téye ci beneen fesu gauche ba fa la fa la dugg looloo ko téye ba pare téye ca épaule ba daw ànd moom diri ko mais bu loon loxo ba mu téye ci épaule ba ca ca fesu gauche yaakaar naa ni bëri bu rëy ngay gis ndax sa di da ciy génnaat xam nga ñu wax ni Balla tamit bëri a grandeur ndax tey ku daan giri tey laa ma sa gis giri ñu daan ko ba toog ci koom. waxoon na loolu musul am. waaw man tey laa ko ma sa gis quoi Balla giri nee na Balla woon waxoon na ko dinaa ko def def na ko kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm daal. Euh, Balla gay ginnaaw combat ma Gris Bordeaux ëllëgam ci biir laam lu koy xaar muy digganteem ak Boy Niang ndax moment bii nii lu mu war a yokkaat la wala dafa war a changé waat lu bëri non lépp affronté ak te xam di ko di ko jàppale té dañ koy wax dëgg di nga ne Balla il faut mu liggéeyaat miskil bi il faut mu concentré wat xex bi il faut mu défarat ko mais dooru ni mom épercule épercule bo xamanteni ni mi ñëwé baxul épercule bo xamanteni Balla nit ki du la song sax épercule mais lool il faut Balla té na ni estafam euh, ay ñam Lamine ñoo ñu kursi bi xam nga Lamine golok coach Balla maa ngi ay doomu nday lañ wa ay doomu nday lañ diko ñaanal tamit jam mais di wax ni Balla il faut mu ku ko bëgg di nga ne Balla malgré que daan jël bu set wicc bu amul dara ben werente mais tamit man su fekkoon Balla sama mbër la suñ toogee dama na ko bul jibilé jégalul say supporters te défaru juwaat xaar li nga xam ci combat yi ci kanam ci la xam ñu bari nak ñi ngi xippi seen bët te bul parti ni wa Kër Dégol yi ñi ngi xippi seen bët pour ñom li ñu gis ni contane nañ ci ba ni ñoom mën nañoo Balla ci ki ama sen ku bëre ak moom def ni nga def quatre appuis 3 trois soko na la ndomba bu nañ waxante deug kon Balla li koy xaar seddut te Eumeu seen ma nga ci lamb ja gis na la fa xew lepp kenn nettaliwu wuko mo ñewal bopam gis na ko muy ree rek xam nak lu muy ree xam kon ndax ki baxna na entourage Balla staff bi ak ñuko wër nan cumbukaay bi nga xam tane wax naan da désordre par rapport ak man amna ño xamanteni sax suma don doon Balla dama leen fay jaan nak liru. no liru mom mënu mako wax liru wax deug yalla wi liru no xam nga liru wa ku melni ni mënul ñak géejawaay nañu waxante dëgg rek bu ñu waxante dëgg te yàlla tax ndax li muy li muy dégager liiru loolu moom sax lu bëri day gën a désordre wu ñu bëri dañoo xaw a ragal di riiru quoi mais du tudd tur mais am na ñoo xamante ni moom ay genre comédien yu fa ni moom ma doon Balla seetlu naa ba ñëwee ci ginnaaw Balla ba léegi Balla ci jafe-jafe la ne xam naa waaw ñoo xamante ni kenn xamul fu ñu far. Boucher la wala kan na bëri na fa yaa ko tudd de mais dama ne. am na ñoo xamante ni non non Boucher tudd ma ko sax néew ma Boucher Boucher sama rakk la sama mbokkum taalibe mais dama ne am na ñoo xamante ni fi ñëwoon ci rëg-rëg yi ay yeta leen fiy jële barki sëñ Tuubaa Mbàkke eh, waaw non ay yeta leen fiy jële eh, ndax xam nga tey Balla boo dee seet bi ko ñëw Aziz Ndiaye di indi dëggantaan amul cambal-cambal Balla doon def fooye falaam mais yenn certain nit bi ñëwee ci Balla ci la ci mu kaayam désormais xamatoo Balla xamatoo lii ay yuuxu fii ay nàngam fii yooyu jigul mbër Balla mbër la moo xamante ni ni mu bëree supporter noonu la bëree noonu xam nga il faut ñu teg ko ci ask ask ask boo xamante ni day jaar yoon mu tranquille xam nga ndax mbër kaamil la am na fit te boo dee xool lamb ji dimanche fit dong ko ci génne ak jom waxoon naa lamb ji ku ci ëpp jom ëpp ci fit yaay am ndam ñoom loolu moo loolu moo génne Balla mais ku xool ni Balla combat bi ni mu ci sonne gëj naa sonne ci combat waaw loolu laa koy gën a encouragé amateurs yi ay support ay kéem laa koy wax stfam di wax ni daal loolu laa ci xam waaw di wax ni yàlla nañu yàlla defal jàmm. Euh, mbokk internet yi lay suivre saa bu vidéo amee ñuy commentaire looy wax si ñoom di la bàyyi xel chaque jour. waa man dama leen ni dama leen ni ñaanal yàlla xam nga ndax nit matul ndax doomu aadama laa rek léeg-léeg ma juum am ku génn ne xaarim lii nangam ak naa dama ciy kontaan ndax damay xam ni ni nit ku dul juum amul yus nene, nee nit ku dul juum amul yàlla buur bi rek ko dul juum di nga juum ci téere yi di nga juum ci jàngal di nga ubbi sab kaamil di ci jàng ba wacc kamil mais di nga juum di nga juum médecin bi day jàng profession médecin ba mu mën ko dila opérer fat ci witteen lolou lepp mbir suñu borom la mais mok yeb ñu nek Asie Afrique monde entier yeb man khadim ma ngi leen di jàpp loxo te di leen ñaanal suma suñu mbokk immigré yi yalla na leen defal jam may leen teranga guddal fan ndax ñom budul ñom suñu wax ji ñuy wax ni rek ci lamb pour bëgg ñu xam ko ñom rek la ñoko waral xam nga. te lamb ju am dañ koy décornité wax ko lañ ca wax loolu lay amee mais nag bëri na man léegi lu may wax nit ñi topp ci waxoon naa ci commencement Balla Gaye Gris Bordeaux wuñ maa ko fi njëkk a wax. daf nañ daf nañ defarwaat. dañ maa war fay dañ maa war a fay te muy Gris muy Balla ak encadrement dañ ma war fay ndax dégg nañ li ma wax te Balla bi mu génnaatee gis nga ko bi muy defaat ëkkan euh, presse gis nga ko solu li sol booy doole la sol wani liggéey naa. Gris Bordeaux ñëw sol set bu weex wane moom it ni biceps si liggéey na ko kon lool laa ci bëggoon te def nañ combat bu neex di leen ñaanal ñoom ñaari mbër yi di seen carrière la yàlla ndewoy ndewoy ndewoy say maane ndewoy alaykati ka mangala yaara